yéen ñëpp yéen a ko gisandoo yéen seen bopp journaliste yi mënu leen def seen liggéey ñun homme politique yi candidat mënuñu def suñu liggéey askan bi kenn liggéeyul tey Sénégal bloqué na lan moo tax Sénégal bloqué parce que benn nit boo ngi tudd Macky Sall ñu defal ko teraanga nag jox ko premier mandat sept ans mu ne daf ko bëgg mu di jëloon engagement ne da koy wàññi wàññiw ko mu ñëw defaat cinq ans tey am na douze ans askanu Sénégal bi ne ko teraanga boobu ñu la defaloon jeex na à partir du 2 avril mënatoo nekk suñu président de la république mu ne loolu du fi amee Macky Sall mu ngi pexe Macky Sall mu ngi jéem a négocier Macky Sall mu ngi jéem a dialogue Macky Sall mu ngi jéem a wax parce que la seule chose qui l'intéresse mooy nan lay nekkee waat président Sénégal à partir du 2 avril mais nan nga mën a jiite askan boo xam ne bëggatuñu nga jiite leen nañ nga mën a jiite askan boo xam ne ñu ngi yuuxu lekkatuñu naanatuñu nga jël lépp teg ko yow ci sa nafsu bopp ci sa bakkanu bop ne par force xex nous nak ñun nous Nous mëne mëne ak mëne ak président Macky Sall c'est fini Nous xam organisé organiser élection avant le 2 avril mais le 2 avril to suñu président de la République ah may lancer un appel ak les forces de défense et de sécurité les policiers moy gendarmes, yi suñu kër yi lañ dëkk lañ dëkk lañ sénégalais lañ

gis naa ne sax amna sen ben confrère bo xamni ni bo xamni ko ci fala jëm bu soba yalla parce que je me sens responsable de sa situation parce que dafa doon def liguey par rapport à un candidat comme man ñu fekk ko ci lolu est-ce que lolu c'est normal est-ce que Sénégal ji nañ loolu Macky Sall est-ce que teraanga juñ ko jox yépp lolu lañ ko wara fayé il n'a qu'à organiser les élections gis ngeen drapeau bi wacc ni daanu c'est pas un hasard ça veut dire que c'est le Sénégal qui est à terre c'est le président Macky Sall qui a mis le Sénégal à terre. Et le Sénégal ne le mérite pas. J'appelle les gens à résister. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est une marche pacifique pas de dire non à ce mandat qu'il est en train de spolier. Encore qu'il avait voulu faire un troisième mandat. Même dans ce cas, s'il avait fait un troisième mandat, il aurait un mandat par les urnes. Senghor n'a jamais pris un mandat sans passer par les urnes. Abdou Diouf non plus. Ablaï non plus. Mais Yahweh Kan, Bayeou, fukki c'est fini mais je prends moi à travers le consentement de 105 députés à l'Assemblée nationale je vais continuer à être votre roi je vais continuer à être votre bourg les histoires de Bourguet ça ne joue pas au Sénégal nous lui avons fait confiance il n'a qu'à partir nous avons suffisamment de ressources humaines suffisamment de charismatiques suffisamment de panafricains, suffisamment de nationalistes pour mener ce pays à bon port. Nous avons les idées et les propositions pour faire porter ce Sénégal vers le malheureusement, ne se fera pas sans Macky et il n'est pas à l'accepter. Mais il devra partir dans tous les cas. Nous lui demandons d'organiser les élections pour qu'au soir du 2 avril, qu'il y ait une passation de pouvoir au Je vous remercie. waaw eh, chef jàpp si. il faut il faut jël il faut jël kii bi. mais c'est bon mën nga bloquer. ñëwal gannaaw fii la fii waaw.

Pásale el chono. Non, mënu ñàkk c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au moins benn élément, au moins leen di jox élément yi. Dakaractu. On est en train de faire notre, il faut que vous attendez donc. OK. Attendez donc. Non, non, vous attendez. Non, non, non.